sëriñ Modou Khary Mbacké sëriñ Modou Khary Mbacké mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1871 nag ci dëkk bii nag di Mbacké Bawal ci dëkk bii nag di Mbacké Bawal nag la feeñee jamono ci atum 1871 muy doomu soxna Faati Balla Mbacké Soxra ak sëriñ Haramin Mbacké am na ñu ñum bokkal nag soxna Faati Balla Soxra te bokkuñu nag waajur wu góor doomu maam Balla bii nag di soxna Faati Balla Soxra ci loxoy sëriñ Modou Aminta Touré nag la njëkk mook sëriñ Modou Aminta Touré nag am nañ nag benn bant muy ku ñuy wax nag soxna Jat Touré suxraa mi nag ci loxoy sëriñ Moodu Aminta Touré lañ ko jébbal nag sëriñ Ibrahima Kandi Mbàkke sëriñ Ibrahima Kandi Mbàkke mi doomu sëriñ Ibrahima Awa Ñang Mbàkke la sëriñ Ibrahima Awa Ñang Mbàkke doomu Maam Maaram Mbàkke la am na ñiitim nag ñaari bant muy ku ñuy wax nag soxna Buri Mbàkke ak soxna Mariama Mbàkke soxna Faati Balla Suxraa nag bi mu jógee ci loxoy sëriñ Ibrahima Kandi Mbàkke lañ ko jébbal nag sëriñ Haramin Mbàkke moom seer soxna Busa Mbàkke moom Maam Maaram Mbàkke mook sëriñ Haramin Mbàkke itim nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ Moodu Xari Mbàkke Mbacke mii nag ñu fas yéene waxtaane tey jii laataa ñuy xuus sax ci mbirum sëriñ Modou Khary Mbacke ñu wax leen nag njaboot yi ko meññi nag ñoom ñooy ñan muy doomu nag sëñ Haramin Mbacke sëñ Haramin Mbacke nag di doomu sëriñ Sayer soxna Busa Mbacke sëriñ Sayer soxna sa Mbacke di doomu Maam Maaram Mbacke waajuram wu jigéen wii ko meññi nag di soxna Faati Balla Mbacke Suxra doomi Maam Balla Mbacke la Maam Balla Mbacke nag di doomi Maam Maaram Mbacke soxna Faati Balla nag bi mu dem kër sëriñ Modou Aminta Touré nag lañ ko soxna Jature soxna Jature moomu nag bi mu matee dem kër Serigne Mbacke Anta nag lañ ko jébbaloon mi nekkoon nag taawu Maam Mor Anta Sali Mbacke waaye nag jotuñoo am nag ak njaboota ginnaaw nag bu sëriñ Mbacke Anta nag génnee àdduna lañ ko jébbal nag rakkam ja nag Serigne Touba seexul Khadim mu am ca nag benn bant muy soxna Faati Ja Mbacke ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy ku baax ki Serigne Touba Cheikhul Khadim moom soxna Jature lañ ko jébbal nag Serigne Mbacke soxna di taawub nag Serigne Abdul Xaadir Mbacke nag Mbàkke mook sëriñ Mbàkke soxna nag am nañ nag ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdu Ja Mbàkke sëriñ Ibrahima Ja Mbàkke soxna Busa Ja Mbàkke soxna Xari Ja Mbàkke ak sëriñ Mouhamadou Lamine Ja Mbàkke waajuram wii nag di soxna Faati Balla Mbàkke bi mu ñëwee nag ci loxo loxoy sëriñ Ibrahima Kandi Mbàkke ñaari bant nag la am ak moom muy soxna Mariama Mbàkke ak soxna Buri Mbàkke soxna Mariama mbakke nag bi mu matee dem kër sëriñ Mbàkke Busa nag lañ ko jébbaloon nag bu gédee mook sëriñ Mbàkke Busa nag benn bant nag lañ am muy soxna Assu Busa moom nag bi mu matee dem kër sëriñ cheikh assa waalo nag lañ ko jébbaloon moom maam moor jaara mbàkke mook sëriñ cheikh assa waalo itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna xadi mbàkke sëriñ mahmoud mbàkke sëriñ gédé mbàkke ak soxna sooda mbàkke moom soxna faati balla mbàkke nag doom ji nag di soxna buri mbàkke bi mu matee dem kër maam cheikh anta mbàkke moom maam moor anta sali nag lañ ko jébbaloon mook maam cheikh anta mbàkke itam nag benn bant itam nag lañ am muy sëriñ muudu maamun mbàkke sëriñ muudu maamun mbàkke nag moo njëkk a wuutu surtout nag maam Cheikh Anta Mbacke bi mu jógee nag ci loxoy sëriñ Ibrahima Kandi Mbacke moom soxna Faati Balla Mbacke lañ ko jébbal nag sëriñ Haramin Mbacke mu am fa nag sëriñ Moodu Xari Mbacke ñu leen tuddal ñuy doomi soxna Faati Balla Mbacke kër yañ dem nag yañ fa am ñooy jarbaati nag sëriñ Moodu Xari Mbacke sëriñ Moodu Xari Mbacke nag bi mu dal nag alxuraanul karima waajuram nag sëriñ Haramin Mbacke moo ko jàngal nag alxuraanul karima ginnaaw nag bu mu jàngee alxuraanul karim nag ci loxoy waajuram nag sëriñ Haramin Mbacke la ko waajuram nag jël jël jébbal ko nag ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim booba nag Seexul Xadim nag mi ngi nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba Seexul Xadim itim nag moo sàkku itim nag ci mu jàng nag xam-xam ci ñim jaar nag ci wàllu jàng xam-xam maam Ceerno Ibrahima Fatim Mbàkke ndaamal daaru nag ci la bokk bi Seexul Xadim nag di dem ci géej gi mi ngi fi fi la xaar Seexul Xadim nag ba Seexul Xadim nag ñibbisi nag ci géej gi bi Seexul Xadim nag di dem gànnaar bokk na itim nag ci ni itim nag fekkoon nañ na fi wéyal nag am njàngum xam-xamam gànnaar nag la tarbiyoo gànnaar googu nag la ko seexul xaddiim nag njëkk a gërëme bi ko seexul xaddiim nag njëkkee gërëm moom sëriñ Moodu Xari nag daa wéy nag des gànnaar ba ni ko seexul xaddiim woowaatee nag gërëm ko ci gërëm bu mujj bi nag moo tolloog nag bisub ñaar fukki fan nag ak juróom-ñett nag ci weeru gàmmu mu boole koog nag xaritam ba nag sëriñ Mouhamadou Diaw Paxa ak sëriñ Alioune Mbay Korcoro ñii nag la boole nag gërëm laataa nag seexul xaddiim nag di ko gërëm nag ci gànnaar seexul xaddiim nag yabaloon na ko nag ci biir réew mi ngir mu dem nag ci dëkk bii nag di poroxaan mën a yeesalaat soxna jaara ba soo sukkandikoo sax ci wayu cheikh Moussa Ka mi ngi wax ne nag gànnaar nag la ko seexul xaddim yabale ngir nag mu dem yeesal nag barabu soxna si nag ci poroxaan bi mu jotee ngërëmam nag ci réew moomu nag di gànnaar daa delsiwaat nag ci réew mii nag di Sénégal wéyal nag ab liggéeyam bi mu matee jël soxna ñu boole ko nag soxna faati anta sali mbàkke mook soxna faati anta sali mbàkke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ miftaahu mbàkke sëriñ ibrahima mbàkke njurul ak soxna aminta a doomi sëriñ mbàkke soxna la sëriñ mbàkke soxna nag doomi sëriñ abdul xaadar mbàkke la sëriñ abdul xaadar mbàkke nag moo nekkoon nag taawub maam balla sa mbàkke soxna faati anta mbàkke mii nag ñu njëkkoon a jox nag sëñ moodu xari mbàkke doomi soxna anta sali mbàkke la soxna anta sali mbàkke moom nag la mammoor anta sali mbàkke nag tudde woon nag waajuram nag wu jigéen wa di soxna anta sali kan jëmm jooju nag la sëriñ moodu xari nag njëkk a dëkkool nag ci kaw suufa ñetti bant yooyu ñu leen waxal itam nag la ci am mu des nag di liggéeyal ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul yu baree baree baree bari nag yu mu taxawal nag ngir jëmmi nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiima ci biir bërëb yooyu nag mu sancoon nag di fa liggéeyal nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim ñu mën cee ràññee nag dëkk bu ñuy wax nag di Louga sancoon na itam nag ci dëkk bu ñuy wax xabaan ci suuf si nag di kajoor sancoon na itam nag dëkk bu ñuy wax xaayaan suuf nag na ci suuf si nag di saalum ci wetu dëkk bi nag di wàkku nguna na fu ñuy wax daarul xidma ñu gën koo xam nag ci pof di ci suuf si nag di bawal waaye laataa nag muy jóge nag di saalum di sanc si nag dëkk bi nag di daarul ma ñu gën koo xam nag ci pof di ci tuubaa nag la jaaroon nag ci ndigalul sëriñ tuubaa seexul xaddiim ci wetu quartier bii nag di daaru marnaan fi ñu tudde woon nag guy tàggoo foofu itam nag amoon na fa kër itam nag dëkkoon fa amoon fa itam nag daara ci bi sëriñ tuubaa seexul xaddiim joxe ndigal mag ñi ngir nag kenn ku ne nag dem sanc nag dëkk boo moomal boppam ci la bàyyi koo foofu nag dem nag ci penku nag tuubaa sanc fa nag dëkkam nag bu mujj muy atum 1914 jàpp 1915 muy daarul xitma ñu gën koo xam nag ci pof di dëkk boobu nag di daarul Muxaddamatul Xidma sax nag fa la génnee àdduna ci atum defar na nag ay góor yàlla nag yu takkoo takkoo takku ci biir góor yàlla nag yi mu defar ñu mën cee ràññee nag sëriñ Moodu Njaay guy gi sëriñ Amir Njaay sëriñ Majóob Sekk sëriñ Njaga Sekk sëriñ Njaga Isa Géey sëriñ Saaliw Kan sëriñ Note Bey sëriñ Alioune Géey sëriñ Njaga Faal sëriñ Ibrahima Silla ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci ay góor yàlla nag yu mu defar sëriñ Moodu Xari Mbàkke nag bind na nag ak bàcc anta ceeboo bu kokki sëriñ ma sàmba mariama jóob moomu nag la mamor anta sali mbàkke nag yaroon nag jàngal ko ci bi ko mamor anta sali mbàkke nag di yar nag di ko jàngal soxna jaaratullaahi nag mi waajuru ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim nag ma nga fa sëriñ ma sàmba mariama jóob moomu nag melokaanu soxna jaara taxoon na nag mu bindoon ay way nag jagleel ko nag jëmmu jooju nag di soxna jaaratullaahi way yooyu nag la sëriñ tubaa seexul xadim sàkku woon nag ci sëriñ moodu xari mbàkke ngir itam nag mu wayaat ko soo delloo nag ci xasida gi nag sëriñ moodu xari Mbàkke way ngir nag di wayaat na xasida ak sëriñ ma sàmba maree ma jóob mii xasida gi nag mi ngi tàmbalee ci sëriñ Moodu Xari Mbàkke nag ginnaaw bu mu ñu waxee nag moom mooy kan kan mooy ay waajuram kan mooy maamam nag di maam maaram mi ngi ko tàmbalee nag ci sant nag suñu boroom muy wax ne nag mi ngi jublu yàlla ci bi mu ko fajalee nag ay aajoom mu ne booba nag la ko jëmale ak cant goo xam ne ni nag dana ko fajal nag ay bëgg-bëggam cant goo xam ne ni nag dana ko yokk di ko fajal nag lépp loo xam nii nag moom la soxla cant gi muy cant suñu boroom nag am nag tàmbali nag cant nag suñu boroom bokk na ca nag sëriñ Touba mii nga xam ne ni li ay maamam nag di baax baax baax nag bañ leen di bàkkoo moom nag kawe na leen nag ci ak baax bu njëkk nag nit ñi nag dañ daa safoo wala nag di ndamoo ay maam nag yu baax waaye sëriñ Touba nag bi mu dikkee ay maamam ci boppam nag ñoom ñooy safoo nag ak itim nag di sagoo nag seen sët bii sëriñ Touba mi nga xam ne nii nag lépp lu ko neex nag neex na suñu boroom waaye suñu boroom itim nag lépp itim nag lu ko neex itim neex na Seexul Xadiim yàlla moomu nag moom la neex nag mu def sëriñ nag képp koo xam ne nii nag yaa ngi koy xool da gis ne nag képp koo xam ne nii nag aju na nag ci moom suñ borom nag daf lay xëcc jëmale na nag ci boppam mu ne man nag maa ngi jublu ki nga xam ne nii nag moom la ñuy wooye sëriñ Tuubaa te suñ borom nag tànn ko nag ci mbooloo moo xam ne nii nag ñëpp nag ay tànneef lañ ginnaaw nag bu ma santee yàlla nag sant bu amul àpp maa ngi julli nag ci sangam bi nag di ngeen gi mbindeef nag sallallahu taala alayhi wa sallam way wii nag may waaja a way maa ngi ko jëmale nag ci ku ñuy wax soxna jaara mi nga xam ne nii nag képp koo xam ne nii nag siyaare nga ko suñ boroom nag dana la defal nag ay tawféex soxna soxna si nag mooy soxna jaara di soxna si nga xam ne nii nag moom la suñ boroom nag yëkkatee diine nag lislaam li tax mu wax loolu ci doomam nag ci la suñ boroom nag jaaralee yëkkatiwaat nag lii lislaam soxna si nag képp koo xam ne nii nag yaa ngi koy siyaare da nga yóbbaale nag lépp loo xam ne na nag kawee na nag urus ba tey nag sëñ Modou Khary nag mi ngi wax nag ci xasida gi di wax na itim nag mi ngi sant nag koo xam ne nii wala nag mi ngi tagg nag koo xam ne nii sëriñ ma sàmba nag Mariama Jóob santoon na ko nag ci xalimaam ngir nag ay jikkoom nag ak melokaan nag mu yoroon jikko jum yore woon ak melo nag wa mu eggoon moo tax nag ñu doon ko wooyee jaara waaye turam dëgg-dëgg nag mariama la soxna mariama kunta nag mi sëtam nag du ma weddi ndax moom nag maamam nag mariama buso la ko waajuram nag seexul xaddiim nag tudde soxna jaara nag li mu am ci ak li mu am itam nag ci ay yiw nag akuk tabe képp koo xam ne ni daal munoo wàññi nag biddiw yi munoo wàññi nag baaxuk soxna jaara nag akuk tabam ci gàttal daal lu takkoo takkoo takku daal la ñu sëñ Moodu Xari Mbàkke nag di ñu xamal ci xasida yi nag bindoon nag jagleel ko nag soxna jaaratullaahi sëriñ Tuubaa nag mi doomu soxna jaara sàkk woon nag ci sëriñ Moodu Xari Mbàkke nag mu bindaat nag way yooyu nag sëriñ ma sàmba Mareema nag bindoon nag ci soxna jaara ci ginnaaw nag bu mu ko yebalee mu dem nag yeesal barabu soxna jaara ba booba nag sëriñ Moodu Xari nag ma nga gànnaar ca ba muy dem nag di yeesale barab ba nag la ko seexul xadim nag joxaale woon nag mbindum sëriñ ma sàmba Mareema Jóob moomu ngir nag bu yeesalee barab ba ba noppi nag mu wayaat nag wayi ñu teewlu nag li ci sëñ Moodu Xari wax nag ci kàllaamay arab nag la ko bind haza matlabu ridwanil fi taxyiiri nasmi sayqi samba maryama alkokkiyu li sayyidatina maryama jaaratullahi ummi xadiimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gayyarahu sayqu muhammadu xari mbakke ibnu haramin mbakki rahimahullahu amin wajjahtu lillahi lamma li qadal araba hamdan yasuuqu liyal amaala wattalaba zakartu ذكره جل ذكرا لا انتهاء له على الذي دونه أجداده النجبة على الذي شاء ما شاء الإله يسى الله ما شاء وشاء من كونه عجبا عن الذي فيه عينا كل ذي نظر ترى تقدم من لهم تما جسبا عن المكي الذي ما صال منتخبا من جملة البيت كل فرد منهم نجبا عن الصلاة وأبرك السلام على محمد بجميع الآل والأدب وسع بالغر ما من الكرام به وما مها عن جميع الأمة الودبا وبعد فالقصد بالمنزوم مدحتنا لمرأة من يسرها طوله الرغبا لمرأة ندبت جزمي مكارمها إلى زيارتها كالقلب فانتدبا لمرأة رفع الدين الإله بها كما بها السنة البيداء حوت رتبا قرت بها أمة المحبوب سيدنا عينا كما تاب تسعنها كفتببا لمرأة إن يسرها طالب لجدا يؤب ما يحجل الأوراق والسهبا أرجو بها حوص ما لم يحوه الكبرى أو ما حووا دون كسب لازم التعبا وكم أنالت على الدارين صائرها وكم أحاصت حتى عاس ما رغبا لمرأة أرعف الككي مراقمه فيها على كاغر كريمة حسبا لمرأة ataabat awsaafuha albulaga rawman li ixsaaiha walkullu qad taiba li maratin jaara inda annaasi siimatuha wa maryamu lismu man za qaala maa kasaba maryamu kunta lada taksibi tashaduli bintul xadiimi lasi anni maha xataba laha manaaqibu sabqin laa tura wa huda hal yudrikun najma bil ixsaai man xababa daci lmanaqiba laa tuxsaa wa rawdataha sur yaa aqi summa sammi turbaha adaba suwaaruha tansani tusni bi macfiratin wa gayri fathin wa kashfin yuclimu lxuyaba arju biha wa biza taxyiri nayla rida wa nayla ribxin yuniilul amna wa talaba inni mina السيق راج نيل منقبة تعلي الجناب بهذا المده منتخبا خاطبتها راجيا منها بلوغ منن عد الدريح ولي تلين ما صعبا يا من محاسنها ومن منافعها شاعت وعمت ومن صميمة النسبا إني إليك لفرط الشوق مقتهم هول الهواجل wal awaari muktasiba lii faksibi sabqa inda allahi saabu sarin wal tatlubi minhu aydan lii culan nujaba wal tatlubi minhu an yaqdi lxawaaija lii wa yuslihu lxaala xatta sirfu man tajiba wal tatlubi minhu an yaqdi lxawaaija lii wa yuslihu lxaala xatta sirtu man tajiba wa an yazuuqa liyal amaal almala duuna ana wa yajlubul amalal matluuba fan jalaba wastanjisi lii min shayqin mawaaciduhu taziidu ribxan wa faydan yuxjilu suhaba taalat calaya walam acjal mawaahidahu wa man mawaacidihi fatib bi an quraba taalat calaya walam acjal mawaahidahu wa man mawaacidihi fatib bi an xaruba abqaahu mawla الله إبقاء الجبال بمن به الإله له كتابه وهبا دع ما به غاب عنك الغير مستغلا بعد أوصاف فضل جار مستعبا أسيلة سات أخلاق مهذبة وذات يمن ودين لم تسه أدبا ولم تسن أبدا صليمة برة من عابها ataba ganiyatun bil masaya an ganan wala gan tuquri wa taqdi liman saaru laha araba mutiatun rabbaha qad jalla an masalin saamiatun amra shayqin lam yasal ajaba alal ilahu biha darrataha walaha ladal muhaymini ma yu'li gadan rutaba man sattamuha wa mata استجابوا لمالكها فالله يسليهم نارا حوت لهبا لها طلبت من الغفار مغفرة تنجي العيال من النيران كالأدبا لها طلبت من الغفار مغفرة ولست منه أميل الدهر منتسبا عم البلاد سلاه فعلها وصفت حسان أخبارها عن عند الملن نجبا فلا تشك ولا تعصى مناقبها عد السجايا فعني عدها احتجبا قصيدة قالها الشيخ أحمد خري مكي بإذن الشيخ القديم غيرها الشيخ محمد خري مكي ابن هرم بات ابن سعيد سون بوسا ابن مام هرم مكي رحمة الله عليهم أجمعين قصيدة googu nag la sëriñ Modou Khary Mbacké nag bind ci ndigalul sëriñ Touba Cheikhoul Khadim ci yabal nag gu ko Cheikh seexul xaddim nag yabaloon poroxaan mu yeesal nag barabu nag soxna ba muy dem nag la ko seexul xaddim joxaale woon mbindum sëriñ Masamba Mareema Jóob nag bu kokki bu mu defoon nag ci soxna jaara sëñ du Xari nag eggee poroxaan nag ba yeesal barab ba la fab xasida googu nag def ko nag ay way way yi nag mu ngi toll nag ci ñeen fukki way nag ak ñett xasida gi itam nag mat Matlabul Ridwaan nag lu ko tudde sëriñ du Xari Mbàkke nag am na nag ay soxna nag yu mu dëkkoo woon ca biir soxna yum dëkkoo woon nag ñu mën cee ràññee soxna Faati Anta Mbàkke mook nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Miftaahu Mbàkke sëriñ Ibrahima Mbàkke njurul ak soxna nag Aminta Mbàkke yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna Faati Lo mook soxna Faati Lo itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdul Karim Mbàkke ak sëriñ Abdou Salaam Mbàkke yoraatoon na nag soxna suñuy wax nag soxna Sooda Kan mook soxna Sooda Kan itam nag amoon nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag ku ñuy wax soxna Mbeen Mbàkke ak soxna Tahiratu Mbàkke yoraatoon na itam nag soxna suñuy wax soxna Penda Ja mook soxna Penda Ja nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Busa Daam sëriñ Am Mbàkke sëriñ sëriñ baara mbàkke soxna faati mbàkke ak ku ñuy wax nag soxna ami mbàkke yoroon na soxna suñuy wax nag soxna mëti amar mook soxna mëti amar nag amuñu nag ak njaboota bi mu fi bàyyikoo nag ci atum 1936 la cheikh mamadul moustapha mbàkke jël nag soxna mëti amar jox ko nag sëriñ moodu xari ñang nag bu kër ñang mook sëriñ moodu xari ñang nag ñetti bant nag lañ am ñaari jigéen ak benn nag bu góor soxna yooyu nag la dëkkooloon njaboot yooyu nag la ci am ngir xamale leen nag njaboot yooyu mu am nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna bu sa daam mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ ibrahima Ibrahima Dia Mbacke moom sëriñ Mbacke soxna nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Ibrahima Dia Mbacke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Cheikh Mbacke sëriñ El Hadji Mbacke ak sëriñ Abdul Xaadar Mbacke doom ji nag di soxna Faati Mbacke bi mu matee dem kër sëriñ Mbacke Ndiaye bu sëriñ Daaru Asan Ndiaye nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Mbacke Ndiaye nag benn bant rek lañ am muy soxna Sooda Ndiaye ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Mbacke Ndiaye moom sëriñ Daaru Asan Ndiaye lañ ko jébbal nag sëriñ Daam Joor Loo mook sëriñ Daam Joor Loo itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee nag sëriñ El Loo ak sëriñ Basiiru Lo doom ji nag di soxna Ami Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Omar Mbàkke moom sëriñ Moodu Maamun Mbàkke nag ko joxoon mu am fa nag benn bant muy ku ñuy wax nag soxna Faati Mbàkke bi mu jógee nag ci loxoy sëriñ Omar Mbàkke moom sëriñ Moodu Maamun Mbàkke nag moom maam Cheikh Anta Mbàkke lañ ko jébbaloon nag ñaareelu xalifa Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ba di sëriñ Abdul Aziz Mbàkke Baara waaye moog sëriñ Abdul Aziz Mbàkke Baara amuñu nag ak njaboota doom ji nag di soxna Mbeen Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Abdullahi Mbàkke borom dër bi nag lañ ko jébbaloon ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi lañ ko jébbal nag sëriñ Cheikh Jaxate mook sëriñ Cheikh Jaxate nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag que sëriñ Cheikh Jaxate nag faye woon maam Cheikh Anta Mbacke nag borom dërëm ak ngërëm ñu ko doon wooye nag borom gaawaan Jaxate ak sëriñ Abdul Xaadir Jaxate ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Cheikh Jaxate lañ ko jox nag sëriñ Moodu Kan bu Tuubaa Kan doom ji nag di soxna Tahiratu Mbacke bi mu matee dem kër sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Assa Mbàkke sëriñ Maxtaar Mbàkke ak kañ fayewaatoon nag borom dër bi di sëriñ Abdullahi Mbàkke moo nekkoon sax caatum nag borom dër bi mi ngi ci wetu borom dër bi nag ñu denc ñetti bant yi nag la soxna Tahiratu Mbàkke nag am nag ak borom dër bi ginnaaw bu fi boroom dër bi nag bàyyi ko di sëriñ Abdullahi Mbàkke lañ fab nag soxna Tahiratu Mbàkke jébbal ko nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke mook sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke nag benn bant lañ am sëriñ Moodu Maamun Mbàkke njaboot yi ñu leen tuddal ci sëti sëriñ Moodu Xari Mbàkke yi mu nekki nag ak ku jaxasoog mag ñi toppoon nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ñu man cee ràññee nag sëriñ Mbàkke Buso ndax ñoom ñaar nag ñoo bokk maam ñu nekki nag ay doomu nday itam nag teg ci ñoom ñaar ñëpp nag seen waajur wu jigéen maam Balla Aysa nag mooy ki ko meññi maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moom itam nag ku jaxasoo woon nag sëriñ Moodu Xari Mbàkke la doomu bàjje nag doomu nijaay nag lañ woon waajur wu jigéen wu sëriñ Moodu Xari Mbàkke bàjjenu maam Ibrahima Faati Mbàkke maam Mor Anta Sali Mbàkke itim nag nijaayu sëriñ Moodu Xari Mbàkke nag la woon sëriñ Mouhamadou Diaw Paxa ñoom ñaar moom ñoo bokk moom benn bis nag buñ jotanoo ngërëm nag ci ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim ci réew moomu nag di gànnaar mu dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñett nag ci weeru gàmmu ñoom ñaar itam nag ñoo jógeendoo gànnaar ñoom ñaar itam nag daawuñu tàqalikoo guddi ak bëccëg sëriñ Mouhamadou Diaw Paxa tudde na sax sëriñ Moodu Xari Mbàkke doom taawub sëriñ Moodu Xari bii nag ñu doon wooye sëriñ Misaahu Mbàkke sëriñ Mouhamadou Diaw Paxa itim nag moo ko jàngal xam-xam ñoom ñaar nag dañoo jaxasoo woon nag lool sëriñ Abdoulahi Njaane nag bu Njaane moom itam nag xaritu sëriñ Moodu Xari Mbàkke nag la woon sëriñ Alioune Touré nag bu Gosaas ku jaxasoo woon nag sëriñ Moodu Xari Mbàkke la Cheikh Issa Dieng nag bu Njenneeg Lagan ku wëlërante woon ak sëriñ Moodu Xari Mbàkke la sëriñ Daaru Asan Njaay ku jaxasoo woon ak sëriñ mu Moodu Xari Mbàkke la foboon na soxna jébbaloon ko nag sëriñ Moodu Xari Mbàkke muy soxna Penda Ja ku jaxasoo woon ak sëriñ Mandumbe Mbàkke Xabaan la ku jaxasoo woon ak sëriñ Moodu Ajara Mbàkke ñoo bokk waajur doomi sëriñ tubaa seexul xadim yi moom ñépp nag la jaxasooloon li ko dale nag ci cheikh mamadul moustapha mbàkke ba ci cheikh murtada mbàkke njaboot gu jigéen gi itam naka saalika ba ci sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi yoroon na nag ñaari doomi sëriñ moodu xari mbàkke soxna fatja mbàkke mi taawu cheikhul xadim moom jarbaatu sëriñ moodu xari mbàkke la soxna jature mi ko meññ ak sëriñ moodu xari mbàkke nag ñoo bokk nag wenn waajur sëriñ moodu maamun mbàkke nag bu maam cheikh anta mbàkke moom itam nag jarbaatu sëriñ moodu xari xari mbàkke la soxna buri mbàkke mi ko meññ mook sëriñ moodu xari mbàkke nag ñoo bokk itam nag benn waajur nag wu jigéen sëriñ Abdou Dia mbàkke duyooli jarbaatu sëriñ moodu xari mbàkke la soxna jature mi ko meññ mook sëriñ du xari mbàkke ñoo bokk itam nag benn waajur nag wu jigéen nag kóllëre gu yaatoo yaatu daal la amaloon ak mbooleem nag ñu mu séqaloon ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim soo delloo sax ci way yii nag seex musaa ka way ko wala way yii nag seex musaa ka nag doon way nag jarbaatam nag soxna faati jambàkke tuddaale nag sëriñ Moodu Xari Mbàkke nag mii nijaayam ma ngi koy xamal ne gànnaar nag ci dëkk bii nag di sarsaara la Seexul Xaddiim nag joxoon la ndigal ngir nga dem poroxaan nag yeesal nag barabu soxna si bokk nga nag ci ñi njëkk a yeesal nag barabu soxna si wala yow daal yaay ki njëkk yeesal nag barabu soxna si sëñ Musaa ba tey nag mi ngi wax nag sëriñ Moodu Xari Mbàkke nag ci way yim way nag soxna Fatja Mbàkke di ko xamal ne xasida gi la sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim joxoon te sëriñ Masàmba Mareema Jóob nag ma ko nag ci ko nag wayaat ko ko saalum googu nag ba nga fa demee itam nag yeesal barabu soxna si wër nga nag mbooleem sa maam yi nga xam ne nii nag ñi ngi woon foofu ziyaare leen bokk nga nag ci kilifa yi njëkk a toj nag saalum fonk lislaam nag gu sëriñ Moodu Xari Mbàkke nag fonkoon lislaam moo xam jàkka ja nag moo xam alxuraanul karim ba tey it nag Cheikh Moussa Ka itam nag mi ngi koy lim ci wayim doon way nag jarbaatu sëriñ Moodu Xari Mbàkke ba di taawub Seexul Xadim ba nag di soxna Fat Ja Mbàkke ca soxna Fat nag li ci Cheikh Moussa Ka wax ma wax la nag Cheikh Modou Khary Mbacké kookaay nijaayam moo rawoon waa Mbacké Cheikh Modou Khary mbakke moo am xar baax moo njëkk maggal màggal poroxaan ka baax moo njëkk dem siyaare sunu mam jaara boobee Sëriñ Tuubaa nga woon sarsaara sange barab ba def na fa xasida xasida gaa ngaak man la haa ba mu ñëwee xibaar ko sayxi bamba ne sange naa xabru ba yeesal barba mu ne ko mel nga ne ku dem Madina ak mag makkata ak misr xam nga diina ku masa jéggi jéego ngir siyaara def nala fay jéegoom ya ngir mam jaara xadis ne man saara li wajhillaahi aqaahu aw sayqan bi duunillaahi seex bamba ne jéegub siyaara bu mu doon muy mbokk baate ab sëriñ mbaa mu doon muy benn jéego wala ñaaru jéego mbaa ñetti jéego wala loofa jéego jéego bu nekkay fay yiwi yaari haddina ca këri aljana ya yaay maskana keroog la yeesal xasidak mam samba ne ko nga taalifaat ko ngir man bamba mam samba maryama madaaraw cim lef xamdan liman jahala moo ko taalif seex moodu xari mbakke wër na saalum ca moom at ngir siyaarey maamam mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di daarul neex ma ñu gën koo xam nag ci puuf di di yar di jàng ak di jàngale lu bare bare bare bare bare nag ci dëkk boobu def na ko fa yit ko nag ku baax ki sëriñ Tuubaa cheikhul xadim ba ni mu mujjee gis nag cheikhul xadim Mamadul Moustapha Mbacke ci xilaaf ak Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke nag la génnee àdduna ci atum 1936 mu nekkoon na ku fonk alxuraanul na ku daa yar nag di daal la sax nag ba ni mu génnee àdduna mi ngi génn àdduna nag moom sëriñ Modou Khary Mbacke ci feebar nag bu ko tëral ci dëkk boobu nag mu nekkoon nag sancoon ko di daarul xitma ñu gën koo xam nag ci pof di ci bisub àllarba ñaar fukki fan ak juróom nag ci weer wi nag di rakk ji gàmm ci atum 1355 nag ci gàddaay gi àllarba ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi nag di rakk ji gàmm ci atum 1355 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy mercredi 15 juillet 1936 mercredi 15 juillet 1936 ñu jëlee ko nag ci dëkk boobu indi ko nag ci Touba ci xilaaf ak Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke Serigne Mbacke Bousso mi mbokkam nag di léppam moo ko jullee ñu jébbal ko boromam nag ci armeer yu mag yi soo delloo nag ci marché bii ko Serigne Cheikh Ndiaye xidma nag defal mag ñuy xamal nag lu baree bare bari nag ci dunduk Serigne Modou Khary jaar jaaru Serigne Modou Khary sopp ki sëriñ tubaa xaadim rasuul sëtub maam maaram mbàkke nag bi mu doon yar ak jàng ak jàngale nag gi mu nekkee woon dëkk yi nga xam ne nii nag sanc na leen leen nag ci mbooloo mi nga xam ne nii nag defar na leen ay kiimaan nag yu mu doon dunde lu takkoo takkoo takku daal la ñu sëriñ Cheikh Ndiaye xidma nag di ñu xamal ci sa sëtub maam maaram bii nag di sëriñ Moodu Xari Mbàkke ñu teewlu ko aahin wa aahin maa ngi jooy saa cir di lox saa xol di tooy ma mel ne ab rëbb bu sooy ngir ñàkk Seex Moodu Xari ki tax yoneen benn milas saxaabam yëpp ne taxas mu yóbbu daam yóbbu galas du bàyyi Seex Modou Khari yaa yóbbu daam ci wam sasin Cheikh Ibra dem ca tam sasin Cheikh Anta dem ca tal sasin yóbbaari Cheikh Modou Khari adduna yaa ka mën a wor doo sàmm mukk wëllëre yóbbu nga mbër ma daalare kookaa di Cheikh Modou Khari sanc na pëf di toj gusaas sanc curang raw na xiyaas fu guraas la raw na guuru faas ci yàlla Cheikh Modou Khari bam ma denc ab dërëm musula tekki ak deram musula jëf lu dul ngërëm ba faatu Cheikh Modou Khari sunna si yoneen bi la tegoon tànkam mooy joxe sëriñ bu mag bi koy fàggul njariñ ngir xam ne mën na ab sëriñ ci yàlla Cheikh Modou Khary mosula tekkik laxasaay mosuta dox di wadi waaye maa na saxaabatul rasul ngir ñoo jëfoon ba am wusul takk na dera jaaraamu Cheikh Modou Khary toogul ne bambaay sama sang tëddul di wut luy warukaay ci ak ndawam la teel a jaay mbokk Cheikh Modou Khari jàmbaar la woon ju am xorom ko tab la woon ci ab dërëm dërëm du yàq ab dërëm ci yàlla Cheikh Modou Khari fonkoon na gu réy gëmu gëmoon ak tab gu réy gëmu taboon ak fit wu réy wa ma amoon ko dee di Cheikh Modou Khari mosu bàyyi ngir bëgg koom du wuti kër ngir joxi doom te daana bàyyi sàq njuróom jox bamba Cheikh mu jur jox sëriñ bu mag bi rek la gëm jël doom yi def ay sëriñ seexam yépp gërëm roy leen na koy wolof matlabu haajaat la ko def téeréem bu mag ba di wolof gis naa ci seex muudu xari musaa kum way doo ko ndaw ngir moom du cuune te du ndaw antal parit la woon du jëw xamoon na seex muudu xari jasaaka yàlla na yàlla fay maam jàmbi muusaa ngir nga fay te fay ma fay ali yu fay fayaale seex muudu xari wuy jooyle leen ma jenn waay mufti ba doonoon delluwaay te mas la tekki la xasaay kookaa di seex muudu xari du gàntu nit te du ko xas ba doonoon làqawaay aalim ba doonoon delluwaay ci yàlla seex moodu xari mosula tooñ menn mindéef mosula lor menn mindéef jaam ak dag buur ak ki seef ñooyam ci seex moodu xari raayoo ngëneel wala na cas am na ngërëm si magi bas seex mustapha may magi bas gërëm na seex moodu xari du jëfe ci seex moodu xari roy na sëriñ bi si ndawam topp ko mel ne ab laram mosula juyoog ndigalam ba xëy di seex moodu xari xaqiqatul munawwara shariatul mutahara nan na ci léegi kawsara ba man seex moodu xari daa jekk woon làkke arab fonkoon na afdalul kitaab xaddahaasa ajran wa jëf na si diine jëf ju taal na fi taal bu dootu fay yàlla na yàlla xëy ko fay amina Cheikh Modou Khari moo am fasaaxatul lisaan te xamaaru te man bayaan aalim mooy seen ilimaan ci yàlla Cheikh Modou Khari xaara ma xat mu man te ñaan bur yàlla def ma kerkeraan fegal ma am noonu bu añaan bi xaqi Cheikh Modou Khari Mbàkke nag ay xalifaam nag nii la tëddee li ko dalee nag ci atum 1936 ba ci atum 1964 sëriñ Miftaahu Mbàkke mooy nag ab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 maamam boobu ak mboolem nag ñu mu séqal nag sëriñ Modou Khary Mbacke Pofdy sëriñ Modou Khary Mbacke Pofdy nag am na bis nag buñ koy fàttaliku nag ci luñ tuddee ak màggal bis bii mu jotoon ngërëm nag ci sëriñ Touba Seexul Xadim di ñaar fukki fan ak juróom-ñett nag ci weeru gàmmu ak njabootam itam nag daanañ ko ci fàttaliku mook jàmbaari sëriñ mu dañ doon wax nag sëriñ Mouhamadou Diaw ñoo jotandoo woon nag ngërëm waaye bis boobu itam nag njaboot gi itam nag mujjoon nañ ko bàyyi ngir kam jotandoo woon ngërëm nag dañ ko cay màggalal njaboot gi itam nag jàppaatoon nañ bis bi nga xam ne nag ci lañ